xasas mooy tekki am njàngat ay nettali ay xisa aha juróom-ñetti fukki aaya la ak juróom-ñett lu ko gën tuuti màkka wàcc ay baatam tollu na ci ñeenti téeméeri baat tabaarakallaahu ak ñeen fukk ak benn xaraaf yi juróomi junni ak juróom-ñetti téeméer benn man suuxan ci benn aaya bu follikoŋ ci ni saari màkka yi waxee nag dana ko waxee yént yàlla Moussa mën ngaa wax na ci lay déparé da ciy jàngalewaat beneen façon soo laalee ci yént yàlla Moussa su jëjuwee dana ñëwaat tuuti ci waa màkka ak yenent bi ak ñun ñii su ci jugee ñëw ci xaaruun laalaat waa Màkka di jàngale waa tawhid bu wér saari firankulaay bismillahi tilka aay yi ñuy bëgg a jàng de wax dëgg yàlla ayatul kitaab yi nag aayay téere ba la al mubiin bay aji leer nañ nañ amu mbir mi pare da xam ne lépp leer na sama ne nat lu daañu jàng alayka ci min naba'i muuse information muuse xibaaru yént yàlla muuse am na luñ ci mosoon dañuy dolliwaat mel na ñu wax du góor gi doylu ni muy dolli wa firawna ak firawna daañu ko nettalee bil xàq ci lu la xisa gàmmukat yi nag dégg loo borom yàlla ne bil xàq de lu la xisa gàmmukat yi nag bil xàq waaye nag li xaw min ñi nga xam ne yuminuun daañu gëm ñoo ci mën a jariñoo xisa bi li muy neex neex nga mu neex dégg yow mii gëm yaa ci mën a jàngatee yàlla jàngatee ci lu dul yàlla mu ne inna firawna naka bandi boobu ñuy wax firawna alaa yëkkatiku woon na be woon na fil ci suuf si adduna bii nekkoon na fi di rëy rëylu di saata gaay rek tax na wa jaale defoon na alaha ñooñu dëkkam ci an ay parti parti boo gis mu def naan ay parti parti ñii la jëloon def leen ñu am doole ñee mu néewal leen doole ñëm néewal doole mu leen di not dégguloo yestadifu dana doya dal dana ñàkkal solo taifatan ab parti minhum ca ñoom te mooy ña ñuy doya dal mooy mbokk yënt yàlla Muusa yi di banu Israil yënt yàlla Muusa eh, Firawna tuub Firawna ah waxoon nañ la géntoon na génn gént mu dem ci sëriñ si sëriñ si ne ko kat loolu la muy tekki mooy génn góor dana fi juddoo te su fi juddoo tabaarakallaahu hmm? mooy daaneel sa pouvoir mu ne ku juddu te góor na dee na dee mujj gi ba mu demee ba ëpp nag sëriñ si ko yaa ngi def xay mu ne lu ciy xalaat ñu ne ko soo rey at mi tëb at mi moom la junj yu sabbixu dana rey abnaahum seen doom yu góor yi wa yastax yi muy desal firaaw na mënul dundal nisaahum seen jigéen ñi Uh-huh. innahu naka firawna kaana bokkoon na nel mufsidiin ci yàqkat yu mag ya mag yi aka saay-saay saa borom ne wa nuriidu ah lu paase mu koy nettali di wax nu nuriidu bëgg mu sax ci sa xel mi rek la hmm, lu paase ba pare ba pare mu naan wa nuriidu daanu bëgg nunu yàlla déet paase na di ba muy def li lii jëf-jëf mi nekk paase na waaye bëgg mu teew ci sa xel mi moo tax mu wàcc ko wàcc waayu mu daari maanaam comme noonu dafa fekke na passé na bëgg na ñun yàlla an namun na ñu xéewal jox ba mu doy ala alladina ci gaa ya nga xam ne mooy banu israil ustudifu doye daleef na foon na leen noggatoo foon na leen fil ardi ci réewum misra moo ñi néew lan doole laa bëgg jox pouvoir wa najaalahum ñi def leen ñoom ñu néewaloon doole a immatan ñuy ay kilifa yoo xam ne ñëpp roy ci ñoom ngir ak mbaax akuk sell yooyu yëpp la bëgg de te wana yàlla mum ñu def leen itam alwaarisiin ñuy way donn puwaaru firawna bi su ko defee wanu makkina daa ñu jekkuloo lahum ñeel leen ñoom banu israil fil ardi ci réewu misra ak adduna bi jekkulee leen ko bu baax a baax wa nuriya daañu wan firawna firawna wa haaman ak haaman ministre am boobu wa junudahuma ak seen soldaar ya ak seen pouvoir ya minhum ci ñoom maakaanu la nga xam ne nekkoon nañu yahzarun doon ko moytandiku mooy lañ doon moytandiku bañ seen pouvoir dem lañ doon ragal yëpp sa borom ne naa leen ko wanta farfar daañu ko gis de daanu pouvoir bi na euh, mu commencé junj nag ay mbir yént yàlla Moussa ba ko yaayam ëmbee mm. maire bi nga xam ne moo nekkoon sage-femme bi daan doñ foofu mm. xaritu yaay yént yàlla Muusaa la woon mm. ba mu ëmbee nag tabaarakallaahu bis bu set nit ñi sirwaye maire bi daal mu ngi dugg ko génn ba nga xamee ne yént yàlla Muusaa judd na ci loxol maire boobu maire bi yàlla rof ci moom ak cofeel ba ñi mu wuute waxe firaaw na ne am na gone gu góor gu juddu fee mu ko koy nëbbule di ko ko nëbbule di ko nëbbule ba Alhaji Sekeri daal gis nañ maire bi bëri tànk ci kër googa mm. ñu ne maire bi daal ko mooy dooñ fee ni mu fa bëri tànk daal du ñàkk mbirang fa mm. ah mbirang fa mbirang fa ñooñu ba ñuy ñëw yént yàlla Moussa yaayam yëg ko rek jël ko rek sànni ko ca biir fuur bu tàkk ba ñëw ñu xool waa fii kenn amu fi ah fii dara moom nekk fi ñu xool xool dugg génn gisuñ dara bañ demee ba dem nag am ay fan maanaam bañ demee ba génn yaay Moussa dem ca fuur ba fekk Moussa ngi téye baaraam bi di màcc di nàmp dara jotu ko ñu génne waat ko yàlla ki teg loxo yàlla xamal ko nag nag da nga koy jël nga daajlu ak waxande mooy gaal gu ndaw nga dugal ko ci sànni ko ci def nga te déglu ma dana del siwaat ci say loxo ministre ba nga xam ne moo doon defar gaal ga bañ jëndee waxande bi mu laaj ko loo ciy def ah, yaay yent yàlla Moussa bañ a wax lu dul dëgg ne ko sama doom laa ciy def pour denc ko kooka nag mel ni ku gallaxndikoo ndi koo laalo laa ilaaha illallaah dem ca raykat ya na da leen koy wax saa boo àggee foofa yàlla téye làmmiñ yi muumaloo ko gaa yi ne ne na tàlli ñu bàcc bàccal bàcc bàccal ba mu tàlli ñu bàyyiwaat digga def ba mi ñetti yoon nag tabaarakallaahu mënuñ ci dara mu jël ko sànni ko ci biir géej gi na amoon na benn doom bu jigéen benn doom boobu rek la mës a am feebaroon na feebar boo xam ne jaaxaloon na ko lool moom Firawna ñu ne ko nag sëriñ sa ne ko kii daal li koy faj mooy liir boo xam ne ci géej gi la war a teeri te bu fa teer see lor yey bàyyi ko ci moom yaaxit yi nekk fii bu ko raayoo rek wér fan yooyu nag gaay di siriwee géej gi ba gis kees gi ñeena dikk ah ba kees gi dikkee nu ubbi xool muy nit gis muy macc baaraam bi xale bu jigéen moom bala ñoo xàmmee bukki bu góor bu jigéen moom la ñoo di jee yëfi araay doomu firaaw na ba wér ci tàng-tàng ba asiyee ne ko ko yi nañ ko jël def ko doom comme maag yow doom kay te yàgg nañu hmm? nañ ko jël def ko mu ne ko ah doom ji góor daal bëgg nañ ko waaye bii daal man ni ma koy gisee bëtam yii dama ko ñëwul dara mu ne ko ah nañ ko jël rek kii kay baax na nañ ko jël rek ci lañ ko jëlee nag sama borom lay nettali noonu dégg nga waaw xëy naa ilham nañu jigéen du am wax yu ilham lay am wax yu yenenta kay am ilaa ummi Muusa jëm ci yaay yent yàlla muusee gis nga foofa te bayaan yi fa ñëw ñaari santaaneng fa ñaari tereng fa ñaari xamleng fa ñaari bégleng fa kenn musul dégg lii a an ardiihi ak alqiihi yooyu ay santaane la laa takaafi wala tahzani yooyu ay tere la ah ñaari xamle yeeg ñaari bégle yi nag mooy raadduuhu ak jaa'iluuhu mhm. delloo dana am bégle la ba xamle la waaw mhm. moo tax yàlla ni muy waxe ni mu garaawee saa borom ne ko te terewul raaduuhu ak jaa'iluuhu benn bu ci nekk yàlla nga def mu nekk jumlatul ismiya ndax jumlatul ismiya moom tufidul subut wala istimrar loolu nga jàngoon ci bayaan ba bokkut ak jumlatul fi'liya dégg nga de ñu ne kaa ne ee eh, ardiihi nampalal gone gi fa ida xifti ndegam ragal nga alayhi ci gone gi ak loroom fa alqiihi sànni ko yam yammi ci géej ga wala takaafi bul ragal ak ragab ragalam wala taxsini bul jàkk ci teqalikoo gi war teqalikoo moom mu mel ni def ne ko tax yàlla ne ko innaanun yàlla raaduuhu dégguloo way delloo lañu la ki jëm ci yow mooy xale bi daañu la joxaat wa jaa'iluuhu daañu ko def itam boole ko min al mursalin bañ ko sànnee faltakatahu for na ko aalu firawn waa kër firawn noo ko for comme noonu ma la nettalee li yakuna pour mu mujj nekk lahum ñeel leen aduun ab noon wa hasanan ak njàqare boo xam ne da dugg sama borom ne inna firawna naka firawna wa haamaan ak premier ministre boobu ñuy wa haamaan wa junudahuma ak seen soldaar ya kaanu nekkoon nañu xaati indi ay juumkat ay mooykat yàlla piir ñi ngi nii waaye tax na dugg naa leen ci loxol gone gi wax naa la ko léegi wa xaalat wax na imraatu firaw soxna firaaw na sa ca boppam di asiya bint muzahim moom moo wax ne Euh, kii nañ ko jël jël ko def ko ah ah qurrata mu nekk seddu xol lii boobu dina ma ñeel wala ka ak yow yaa nekk xanaa yow ñun man kay doy na ah, yow kay man kay doy na sëkk kii kay bëtam yii ñemewu ko dara la ah, léegi nag foofu asee la laa taqtuluuhu bu leen ko rey te Firawna dong moo fi rey mu ne bu leen ko rey jublu ci maas la ak asa amaana an yanfaana mu jariñ ñu bu màggee da ngeen ñu màggat moomu mun yer pouvoir bi aw nattaxisahu wala ñu jàppe ko wala dan doom joo xam ne daf ñuy jàppale wahum ñoom laa yasaruun xamuñu woon mbir yént yàlla Muusaa fi mi mujj fa wa asbaha mujj na del war na ci yaay ja fuaadu ummi Muusaa xolu yaay yént yàlla Muusaa ba mu sànnee doom ja ca biir géej ga faarixan di aji feex ci bépp soxla boo xam ne amoon na ko ba mu des ñàkk gin ñàkk yonent yàlla Muusa ndax léeg-léeg nga am ay problème ak soxla benn soxla ñëw tax nga fàtte soxla yëpp léeg-léeg nga am ay naqare ki njàqare bu gën garaaw boobu tiitaa nga ñëw jàppale ba nga fàtte yëpp bis bu seet mu jàll ñu ñun ñëpp kon faarixan aha innaka ndaw soosu xaalat xaw koon na sax tuuti kon rek la tub di di feeñal bii ci yënt yàlla Moussa doomam la ndax bañ ci indee pour mu nàmpal ko la ca wax waxam ja waaye sama borom na ay law laa an rabat na ay buñ te yeewu toon dëgëral ala qalbiha ci xolam boobu ba mën muñ waaye yeew nañ ko kon lee du am la takuna li takuna ngir nekk goo xam ne nekk na ko nel muminin di way gëm sin rendi kon kay wax koon na ko ba mu koy sànni nag xaaral ñu àggal aay jooju te euh, euh, ba mu ko sànnee nag def na sóoru Moussa bi topp ko ba xam ci dex gi fu mu fii teeree ba mu teeree tabaarakallaahu ku ñu indi pour mu nàmpal ko rek mu bañ sóoru Moussa bi moo ne man daal xam naa fi jënn jigéen joo xam ne néew na li koy liir di bañ ku lewet la ku yaatul la wax dëgg yàlla ku baax a baax la ñu wow yaay yonent yàlla Moussa mu di ko jox ko mu nàmpal ay ca jeex na booleeg ñu koy fay. wakaale wax na. wa qaala wax na moom yaay yinti yàlla Moussa li uxtihi ñeel magu Moussa bu jigéen bi xus fiihi toppal ma ko ci tàkkal dex gi fa basura gis na ma ngay xool rek bihi ci yinti yàlla Moussa kees gi an junubin ci ay côté ba xam luy jël kees gi wahum ñoom laa yas'uruuna yëguñ ne kii kees gi lay topp ma kay koy topp te firaaw naag waa këram yi for kees gi yëguñ na kii kees gi lay topp su ko wa xaram naa xaraamal nañu almaradia way nampal yi min qablu la jiitu ñu koy delloo yaayam fa xaalal wax na eh taxaw eh, ñu taxaw ci xaram naa su ko defee rek ñu jàng faati ak salaatu faati def ko hadi yi ci yonent bi rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبالله أستعين في كل أمور وعليه التكل في كل دهور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نيجي ونجي سورة القصص ci aaya fukk ak ñaar ba nga xamee ne yent yàlla Muusa teer na ci tefes gi teer googu mu teer ñu gis ne kii kat aaje woon a ñam ñi nga xam ne ñooy nàmpalkat yi ci dëkk bi ku ñu ci indi rek yent yàlla Muusa mel na lu gànt ba coow li bëri ba bëri nag sërëm boobu nga xam ne moom lañ ko toppaloo woon di mariyam moo ñëw ne ah man de xam naa benn jigéen boo xam ne xëy na bu ngeen jotoon ci moom de a ah, ku baax la de kooku daal néew na lu ko néew na lu ko xoosali néew na lu ko di bañ xam naa su ngeen jotoon ci moom de dana baax te booba kat mi ngi ci namm yaay yénti yàlla Muusa départ ñu woo yaay yénti yàlla Muusa mu dikk ñu jàmmasanteeg moom nekk xale bi dinañ ko for ci tàkk gi xam naa war na aaji woon ñam ndax xaw na sonn léegi nag dañu bëgg ku ñu ko nampalal ñu tegtal ñu la léegi nag dañoo bëggoon nga xool mooy a ah, man de wax dëgg yàlla néew na fu ma xale di bañee daal waaw man daal sama soow neex a neex goo xam ne néew na fu ma xale di bañee foofu daal la ñuy commencé sama borom nee na waxaram naa xañ nañu wala tere nañu alayhi ci yent yàlla Muusa almaradi a nampalkat ya min xablu lu jiitu ñu koy delloowaat yaayam fa qaalat magam ba ci boppam di sëru yént yàlla Muusa ba ba coow li bëree ba bari moo ne hal adullukum ndax duma leen tegtal ndax duma leen wan ala ahli baytin ci waa kër goo xam ne ñu bëri cofeel lañu ñu bëri yërmande lañu ñoo xam ne suñu jotee ci xale bi yakfuluunahu daañu ko yar lakum pour yéen mooy nàmpalal leen ko ba mu mat ba mu fer ñu dellowaat leen ko wu ta waxum ñoom ndaa si xuna way sellal lañu lahu ñel gone gi duñ ci rax dara lépp lu yàq gone gi daal daanu ko mooy tandiku aha ñu jox ko mu nangu ween wa mu namp mu ne weer nangam ngeen may kat firaaw na loolu du ñu boole dégg loo ne faradadnaahu delloo nañu ko moom yënt yàlla Muusa ila ummihi jëmaat ci yaayam kay taqarra ngir na sedd aynuha xolam ci daja gim gi dajawaat ak doomam jooju di yënt yàlla Muusa dégg nga wala taxsan bul taalama ak pour na xam moom ndaw si na mujj xam ne anna waadallahi naka randiw bi yàlla digu yàlla te yàllaa ko digoon naka ndaañ la delloo ndax inna araaduhu jaataxoon mu xam ne loolu xakkun dëggu rëy da walakin waaye nag akasarahum li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñ ne li yàlla wax dana ko def sénégalais yu bëree ne li yàlla wax dana ko def dañuy jàpp ne daal dafa am jot di wax rek day wax di wàcc waaw baax na yénti yàlla Moussa fer na mi ngi nekk ci kër Firawna nekk fa nekk fa nekk fa ba am fanweeri at kese wala fanweeri at ak ñett waaye fanweeri at daal moo gën lëng wala mbaa balaxa ba demee ba jot kàttanam asuddahu kàttanam mooy am fanweeri at dëgër daal nekk waxambaane mu dëgër këj nga xam ne kum dagg nga wàcc wastawa tolloo ca moom mooy tolloog ati nubuwa aataynaahu jox nañu ko moom yonent yàlla Muusa xukman xam-xam wala xikma ay atte yu am njariñ lool wa ilman ak déggi diine avant ñu koy yónni boobu yónne yónne gi amagul sama borom nag nee na wa kazalika nekk nii ma yàlla Muusa najisi la ñuy faye almuxsiniina way rafetal yi benn jigéen téere yi dañuy wax ne dafa mës a yor lu dul benn tibb dem ba kay sax ci gémmiñam gi benn yalwaankat ñëw yalwaan ko mu jox ko ko fom mu ko koy joxe rek ci liggéey jaar ca gannaaw ŋànk doom ja ti liggéey téere séeréef rek am lu ko dogale nangoo ko ci gémmiñ gi ñu nekk aljisaw jin su la amal lii nga defoon lii lañ lay fay moo jëloon tib bi nga xam ne demoon na bay dem ci gémmiñam mu jox ko nit te yàlla tax doomam ji it bokk ci li gën a ciix pour fas yéene añee ko yàlla yabal lu ko génne ci gémmiñu ci liggéey ñu dellawaat ko ko ngir fay jëfam ju rafet jee mooy kadaalika naka nii ñu fayee yënt yàlla Muusaa ci jëfam ju rafet ji najis la ñuy fayee al muhsinin saa borom nee na ku rafetal daal fii rek ñaq réerul borom léegi yënt yàlla Muusaa wa daxala dugg na almadinata dëkk ba mooy misra ala xiini gaflatin ci jamonoy càggante mooy jamonoy zes digg ba cëg mu amoon soxla di doxante ci boori àll bi min ahliha ci waa dëkk ba tukkee ci waa dëkk ba bàyyi ko ci dëkk ba di doxante ci boori àll a ah ba muy doxante noonu ci biir àll bi rek fa wajara fekk na moom yonent yàlla Muusa fiihaa ca biir àll ba rajulayni ñaari gaay ñaari gaay yoo xam ne yakasati laani ña ngay raak di faay faay fi métti ah te kenn ki ci waa kër Firawna la ci xibtiyu yi la bokk kenn ki e, ci bani Israel la bokk xanaa kon kenn kaa ngi far ci waa kër yonent yàlla Muusa boobu donte yónneeguñu ko waaye kenn kaa ngi far ci firaaw na deret moo ko xam nga day taxaw haala kii min suyaatihi mi ngi bokk ci bani israil mooy mbokkam yonent yàlla Muusa la wa haala kii ci des min aduwihi noonam la mooy xibti la léegi nag la leen boole mooy xibti bi ci boppam dafa taxan ba àggal ne yow israil bi kaay yenu ko nga yenu say wi ma topp sa gannaaw waaw nag israeli bi nekk du ma yenu say wi nag mbokk mi indi yàlla Moussa bi nekk du ma yenu say wi de yenoog dee ngeer ñoom ñaar danga ko yenu du ma ko yenu ci la seen yent yàlla Moussa mu ëyyi ko yent yàlla Moussa taxaw dikk na waaw lan la luy problème bi xibti yi bi ne ko xaw ma israel yi bi ne ko mbokk mu yonent yàlla Musaa ne ko gis nga kit xibti yi dafa taxan ba ba sayu jeex ba sayu mat tabaarakallaa mu bëgg ma kaa yenn loo ma bañ nag Musaa di lijjanti yam leen dee waa ji maanaam xibti wi di jaay dëgër bopp nag Musaa dagaare mu wàcc jeex na fa mu mel ni ku koy xëbal di fara di ka mbejaale noonu ndeke fa la waaje yam mbokkam firaaw na ma fa sagaasahu sàkkoonaa xettaliku ci yënt yàlla Muusa alladi ka nga xam ne min siyaatihi mi ngi bokk ci waa kër yënt yàlla Muusa mi ngi bokk ci bani Israil ci kan alladi ci ka nga xam ne min aduwihi seen noonu la te mooy xibtiyu bi mbokkam Firawna ba Muusa yamale toog leen déet waaj di jaay ak luubu di jaay rek Muusa aji ko mu jeex wàcce ko fa wakasahu are na ko wakasu mooy dëgg kurfañ rek kurfañ na ko Muusa fa qada alayhi waajidee e eh. <laughs> coow am na de Muusa nag ba mu gisee ne waa ji moom fi mu nekk nii bokkatul mu ne dëgg-dëgg haada rey gii ma rey waa ji da doon kaf ni dagg are di xëbal rek dee gi mu dee de bi na amali seytaan lii de moom xam naa ne yëfi seytaane pire ndax moo ma am mer ba li ma dal dal ma hmm. innahu lakum aduwun noon la ci doomu aadama mudillun bay aji sànke waaye mubiin bay aji bér nu muy noonee dégg nga de ah Moussa nag daal di jàkkaarloog borom bi waaye jàppal ne xasanaatul abraar moom sayyiaatul muqarrabiin comme niñ la kaan waxee rek ray gim ka ray amu ci benn bàkkaar ndax yeneen toujours maasum lay doon mu ne yàlla yow laay wax inni man mii kat zalamtu juum naa tooñ naa wax dëgg yàlla nafsi doon naa atte far ndogal fekk ma ca léegi nag xam nga li xew suturaal ma fa xabir lii jéggal ma mooy suturaal ma sama borom naka d'accord fa xabara lahu yàlla baal ko suturaal ko jéggal ko sutura soos nag moo la wala woo ba ñu koy bëgg a jàpp dëkk bi di ko bëgg a rendi mu lalli innahu naka moom yàlla hu moom laa wax alxafuur arrahim yëpp yàlla ko melakaano xaale yent yàlla Moussa di kontine di wax ne rabbi yow sama boroom bi ma ana amta ca la nga xam ne xéewale nga ko aleye ci man mooy jéggal gi ma jéggal ak musal gi ma musal bis ni ki falan akuna dootuma nekkati mukk mukk li si sama dund gi waay zahiran may aji dimbaleeti lil mujrimina ci saay saay bis ni tey daal moo fekkati ñaar ñuy xeex naa ca maandu ndax saytaane moom dafa gaaw fitna moom dafa gaaw ñu dikk nag am na ko rey nit ci dëkk ba am na ko rey nit ci dëkk ba dëkk am na ko fi dee rumeur yi jug nag am na ko fi rey nit Moussa ngi teg tànkam ci bal bi nangul mu jëm kaw moom dafa bàyyi mu sedd rek dégg nga bu baax ñépp nag di bàyyi xel kan moo rey nit ki ndax police a nga koy gës ku nekk a kay koy wër mënuñ koo gis Moussa génnaat di doxiwaat soxlaam ci àll ba kam doon xettali fekk mooy jotewaat ak keneen kooku xam naa lëj na de moom fekk mooy jotewaat keneen koo xam ne ab xibti la bokk ci waa kër Firawna kooku itam da nga yenu matt meeg du ko yenoog jàppal mus koo ko doon xeetale ko ci yonent yàlla Moussa mbokk mi daal di jëlaat Moussa eh Moussa waaye ñëwal jàppale ma ci waa ji waay ah yow daal amuloo morom Moussa dikki di arrangé di seet nu mu leen di tàggalee ba Moussa waa ji wax Moussa ba mu waxee wax wax mu të xibti bi xaw a dëgër bopp Moussa mel ni ku xaaw ak loxo ngum mi waa ji nekk ah mbokk mu xam déet mbar bu gomaa rey nga reyoon waa ji démb yow kat sa loxo bi dafa tàng saare moom ku fekk wàcce ko moom aha xifti ba daw rek ne Moussa moo rey ndekkati nit ki démb fa nii ndekke ki doon coow kan moo ko rey kenn kan moo ko rey kenn xamu ko laay ndekkati Moussa ka reyoon aha Moussa na jël samay bagage jot na nag déggloo nee na faas baxa mujj ca dëkk ba xaayifan mbir moom muy aji ragal gaa yi song ko taax na yatarakab tabaarakallaahu ma ngay sëriñ waaye di fuuglu bu baax a baax di déglu ba xam lan mooy xew a fa idaa ci noonu allazi ka nga xam ne istansarahu sàkku woon na dimbandiku bila ams ci démb mooy ca fan yii la passé bàyyil ams nag bu am liif ak laam ak bu amee alif kese mhm, day am différence de dégg nga de ams boo xam ne dafa am alif kese kese mooy démb gisas ki tey al ams nag mooy yeneen fan yi mën na nekk sax daaw wala fan ye wala ci weer yi passé comme ni ko waxee comme bërki démb léeg-léeg wala ah moom li bërki démb rek la fi jaaroon te moom mooy wax bërki démb la fi jaaroon ay weer kon moom bërki démb dong nga ko kon loolu ñaari baat yi nga bàyyi ko xel tuuti ah fan yi ci ginnaaw ka nga xam ne moo doon sàkku ndimbal ci moom yastasriquhu ma ngay sàkkoo xettalikuwaat ci Muusa ci kaw xibti bii di leen indil jafe-jafe xaala wax ko doon ñeel ko Muusa ne ko innaka naka yow mii di xettaliku ci man di sama mbok yow ka gis naa ne la xaw yun ku beew nga ma biinu mu biinun ku bir nuy bewee nag yow nag ku doy waar nga hmm? ah yow démb nga jàppante fa nga nekk di jàppante waat ah xamu ko araada ba bëggee moom yënt yàlla Muusa an yabti sa ci mu song bi lesi ca ka xam ne woo mooma aduwun noon la lahumaa ñeel leen ñoom ñaar di Muusa ak mbokkam hmm? bi kon xifti wi la bëggoon xaala wax ka doon xettaliku bu mu gisee Muusa defaraat loxo bi di jéem a xàcc di xëbalaate mu ne ko yaa Muusa ah waaw yow góor gi a turiidu ndax da bëgg an taqtula nii nga buum ma nga wàcce ma nga effacé ma mm. kama xatal ta comme naka nga effacé woon rey mm. démb nafsan bil amsi ah da na defoon waa ji démb nga ma bëgg a def mm. aha xifti yi bi la lalli moom naa bon li ñu doon wër te yàlla xamal na ko mbokk mi ne yow yënt yàlla Moussa in turidu déet ngay bëgg ci réew mii illaa an takun lu nga nekk fi jabbaaran di bandi yow daal ab bandi nga fi bëgg a nekkee ak agresseur du sotti fi laar di wa maa turidu bëgguloo an nakuna eh, eh, eh, takuna ba nga nekk minal muslihin bokk ci ñi nga xam ne dañuy yëwénal di def lu baax wax naa la kër dégg ko rek lalli ñëpp nag du tëru yént yàlla Moussa pour jàpp benn waaye daal ba mu déggee ne yént yàlla Moussa ñi ngi kongare pour nuñ ko rayee pour moom it nuñ ko effacé benn waaye dem ne ah, mooy mumin ali firawna mooy ko tuyoon tabaarkàlla kees ga ministre ba yettoon kees ga moom moom ca tàng tàng la gëmoon yént yàlla Moussa afaa dara di xew kooku moo ñëwaat ci yént yàlla Moussa ne ko ah li ma dégg gaa yi di ngurum tura ci seen penc yi ak seen jotaay ya xam naa bu yoboo nga waaj soo mënee lalli daal na ko def seen ay pexe moom mu jubee da nga dee de dégg nga ko wa jaa ñëw na rajulun benn waay min axsal madina bàyyi koo fa gën sori ca dëkk ba yasaa ma ngay dox dox bu gaaw a gaaw waaxu dox dox ni fulla xaala mu ne yaa muusee yow yent yàlla muusee innal mala a naka mbooloo mooy kilifa yi yatamiruun ñoo ngi diisoo bi ci say mbir seet ba xam nan lañ lay effacé fii li yaqtuluuka pour ñu rey la Moussa ne ka ah mu ne ka ah, faxruj kat génnal dëkk bi soo bëggee jàmm inni man mii laka pour yow minan naasihiin dama bokk ci ñi nga xam ne dañu lay laay biir ndax dañoo yëg loo yëgagul ñu bëgg la nga xamal balaa loolu di agsi ci sa kaw ndax man xam naa ne am nga may yàlla hmm? aha ay ca Moussa ne kon baax na comme jërëjëf ngelawal jàmm fa xaraja génn na min ha ca dëkk ba moom yent yàlla Muusa xaifan muy aji ragal yataraqab di fuuglu di bàyyiwante xel gaa yi bu baax a baax kotom bi moo amul benn njëriñ ah dafa door départ aywa yataraqab muy fuuglu di bàyyiwaale xel gaa yi ba xam fu affaire bi mujj xaala wax moom yent yàlla Muusa na rabbi yow sama boroom yàllaay waxanteeg na jini yàlla nag mu musul bu baax a baax minal xaw mi ci gaa yi nga xam ne awwaalimiin ay tooñkat lañu firaaw naa ki waa këram ñii yàlla na nga dox sama digganteeg ñoom léegi musa départ na ba mu amu yaakaar ne war na tegu ci yoonu Suaybu bi mooy eh, Madian walamma tawajjaha ba nga xamee ne jublu na moom yent yàlla Moussa jël na décision dem tilqaa Madian ci côté madiyan mooy dëkk yent yàlla Soaybu ba Soaybu nag yent bu guddoon fan la ñetti junni at dundoon na ko yàgg na fi lool waaw waaw dund ko waaw ñett waaw wax nañ lool waaw moo ko gën a gudd fan kon gudd na fan de <laughs> jant yàgg na ko fay fenkee ak ko fay nawet yu bëri fekk nañ ko fi wàññi ba mu nee ba soobu yoon dëkkam boobu nag xaala yënt yàlla Muusa ne asa rabbi amaana sama boroom xam naa ne nii ma jaar nii sax du yoon wi ndax mi ngi dafa jaarul ci digg yoon wi ndax mën na am bu jaaree ci digg yoon wi gars yi mun nañ ko dogale jàpp ko waaye dafa teggi yoon wi di fital rek ci biir féetal boobu mu ne amaana sama boroom an yahdiyani mu gindi ma orienté ma sawa asabili ci diggu yoon wi amaane yàlla boole maa ku may wan yoon ba ma àgg ci dëkk ba ba muy dox di dox di dox ba jub dëkk bi xam nga dëkk yi ñaare boo ci jub teen bi nga jëkk a jot dégg nga wax bi mu àgg ci teen ba nag fekk sàmm sëpp a ngi foofu kay ñuy wëgg jur gépp la jëloo foofu ba mu ñëwee dallu ci genn garab fee di feexlu ndax dox na ba sonn nekk nelaw rek moo ko dese fa muy dalloo ci beneen wet ga mu gis fa ñaari jigéen toog mu laaj leen waaw yéen lu xew ba du ngeen wëgg ñu ne ka ah, ñun kat ay jigéen lañu te amuñ doole mën a xëccoo ak góor ñi fii teen bi kubéer gi diis na diis goo xam ne ñun duñ ko mën a duñ ko mën a tijji lenn rek lañuy ñuy mën def mooy dañuy bàyyi ba góor ñi wëgg ba pare ci ndeesitu mbalk mi la fa des moom la ñuy wëggal ndax ñun ñaar la seen baay am te seen baay mag la te ñun ñaar ñëpp jigéen la jigéen lañu te góor gi mag la ñun daal ñoo ko taxawee ñu dox walla maa warada ba nga xamee dem na ba yegg maa madiyan teenu madiyan ba dégg nga ko wajada fekk na foofa alayhi ci teen ba ummatan mbooloo moo xam ne min minan naasi fekk na fa mbooloom nit moo xam ne kenn xamul nañu day mbooloo ma nag yaskuun daanu wëgg seen ay gàtt waaye wajada fekk na min dunihim fa yées mbooloo ma maanaam foo xam ne àggul ca mbooloo ma fekk na fa imraatay di ñaari soxna ñaari xale yu jigéen xale yu jigéen yi nag te zuudaani ñi ngay dàq seen gàtt ya seen xar ya pour bu mu jaxasoog gàtti sàmm yi màngaan yi gis nga booy sàmm say xar mbaa nga fëtal leen ba ñu romb ko lu ñu romb rek yóbbaale waaw màngaan yi fii may ni fii nii ci côté bii nii lu ñu romb rek yóbbaale noonu rek la <laughs> soo di mooy bayaa diini <laughs> dégg nga ñu ngi dàq seen gàtt yi pour buñ laal ndox ma ak bu jaxasoo gàtt gaa yi Moussa dikk ba gaa yi di Moussa ne xaala Moussa ne leen mbaa xat bu mooy seen problème yéen ñaar ba nit ñi wëgg wëggu leen ah xaalataa ñoom ñaar ñëpp ñu addu ne ko ñun daal góor gi càmmiñ ñun de wax dëgg yàlla laa nas koy duñu wëgg mukk mukk mukk lu dul dafa gongiku fii ariaawu sàmm si ma lu ñu fi bàyyi ko sàmm yi nga xam ne wëgg maam góor ñi daal wëgg ba dem seen yoon ndesit yéen fay bàyyi ñun ci la ñuy naan Moussa ne déet yéen loolu nu demee noonu bu mu leen wëgg ñu ne ah ñun ko seen bàyyi ñun ñaar laam am te góor gi mag la waa bu naa sunu baay seyxun mag la ab paa la kabirun bu màggat a màggat mootu sa nandal mootu sa ñëw di wëgg Moussa ne waa may leen ma ne tuuti moo xool ba xam kubéeru teen bi lu mat fukki nit ñoo kaan yëkkati Moussa naka sojjet teg fee xam nañ ne leen nang ci de xañ na yor na beneen kàttan gu kàttanu nit bu ko yàlla roof wëggal leen ba pare dem toogaat te garagu ne yàlla xiif naa nag de wax dëgg yàlla xiif naa de ndax fan yëpp lekkuma waaw ndox nag gis naa ko ndax agsi naa ci ndox mi waaye ñam moom yëg naa ne sama euh, kol bi at yittewu na ko dégguloo fa saka wëggal na lahuma ñeel ñaari jigéen ña summa tawalla topp mu dummóoy moom yënt yàlla Muusa ila zilli jëm ca ker ga pour dallu ndax dafa son ca biir dallu fam jaaxaan wéer garab wéeru nii ci garab gi jaaxaan foofu nag mu ne rabbi yow sama borom indi man mii di yonent yàlla Moussa li ma anzalta lépp loo wàcce ilay ci man min xayrin ci xeetu ñam wax dëgg yàlla faqiirun aajo woo naa ko loolu de xiif naa de yëg naa ne xiif naa xiif naa de yëg naa ne xiif naa hmm. baax na gone ye dem ba ñu déggee kàddu gi yonent yàlla Moussa gi nag ak jëf ju rafet ji leen defal ñu gaaw àggaat ca góor ga nettali ko xisa bi ni mu demee léegi ñun daal bàyyi génn góor gu baax daal moo ñëw waxambaane bu baax te am doole waay mm. moo waxuma teen bi sax waaye ba mu koy tijji kenn jàppalewu ko mm. moom dong moo jekki-jekki tijjil ko boppam mm. wëggal ñu waaye nañ déggee daal kàddu yi ñu dégg muy wax dafa mel ni daal xaw na xiif xam naa ne mm-hmm. te waxuma loolu sax comme yow soxla woon nga ku lay wëggal ak ku lay sàmmal xam naa boo ko jëloon ñun danañ arrangé ñun mm-hmm. paa ne dem leen ngeen woo ne kenn ki demal nga woo ko ne ko wuyul góor gi mu ñëw di wuyu si góor gi ndaw si moo jiitu woon Moussa topp ci ginnaawam dama yàgg Moussa ne ko ah déedéet toppal ginnaaw dama wax jëmal ndeyjoor jëmal càmmoñ rek lii moom dafa doy waar ngay dox ni jigéen di di jiitu te ginnaaw léeg-léeg yooyu moom kiimaan la nekkal sama ginnaaw rek waa del wax toppal nday joor toppal càmmoñ toppal ndeyjoor toppal càmmoñ noonu rek la moo tax mu ne fa jaathu dikkal dikkal na yent yàlla Muusa ihdahuma kenn ca ñoom ñaari xale yu jigéen ya tamsi muy dox moom xale bu jigéen ba ala stihyaa in ànd kersa gu ma sëkk sëkk sëkk ndax alxayaa min al iman waaw la yenent waxoon rek so ne ba amatoo kersa fas na ma chita kon kersa mooy nit ndaw si nag kersa googoo ko jàpp dikk mënul siggi xool yonent yàlla Muusa qaala ndaw sa xale ba na inna abi naka sama baay yadoo ko moo lay woo li yeji siika pour ma fay la ajra maa yoolu la nga xam ni sa xayta la naa wëggal ngënu ko li ñu doon wëggal tey ci bëccëg bi la bëgg nga ñëw mu fay la ko a ah, ba yonent yàlla Muusa demee ba dikk nag tabaarakallaahu ñu defal ko berne mu añ defal ko lépp tabaarakallaahu ba dallu ah daal di nettali nag yént yàlla Suaybu mbir mi li ko tax a jóge Misra ba ñëw fii Suaybu na ko bis ni ki tey nag lépp jàmm ndeke booba Suaybu yëg na leer yi nubuwa gi feeñ ci yàlla Muusa ndax boobu fukki at moo ko tere jot fukki at yooya moom lay tarbiye foofa falammaa jaahu ba mu ko ñëwalee wa qassa mu nettali alayhi ca góor ga sa njàngat ma mooy nettali ba waaye kese li dawoon ci ginnaaw yëpp mu nettali ko góor gi xaala góor gi ne ko laa takaf bul tiit bul ragal yow daal li ma xam mooy na jawta mucc nga bis ni ki tey minal qawmi ci gaa yi nga xam ne azalimin firaaw naa ki waa këram yàlla may na la kàttan nga mucc ci ñoom foofu nag la benn doom bu jigéen mi ne baay kii da xam naa boo ko mënoon jàpp surga mu di la sàmmal ah dana baax de ñi ku makka ñi ne ku ndaw ka xaala kenn ka ne ihdaahuma kenn ci ñoom ñaar na yaabati yow baay istajirhu jàpp ko surga yoole ko mooy dee ko fay weer wala ngeen seet nu ngeen koy waxante daal am weer wu jot wala at mu jot nga yëkkati lëf teg ci loxoom ndax inna xayra man istajarta li gën ci surgo boo jàpp di ko liggéeyloowu la gën ci surga ba mooy alqawiyu surga bu dëgër dëgër dëgër am kàttan te xam nga teen ba moo ko xamal ne yént yàlla Moussa borom doole la al amin mu nekkiit ku wóor lii xam ne ku wóor la ayo jazakallah ok njaay njaay njaay lii xam ne ku wóor la tabarakallahu mooy ñoom ñaar ba ñu àndee di ñëw mm-hmm. lam wax ndaw sa toppal sama ginnaaw mm-hmm. moo jiitu ci la xamee ne ku wóor la mm-hmm. kon kii moom tabaarakallaa comme njaboot bu jigéen dong nga am moom muy góor na sa xel dal ci suñu digganteeg moom dégg de ah nu ñuy waxante ñu waxante wax naa la fukki at a des te gis na leeru uh, nubuwa gi feeñ ci moom moo tax mu ne ko fukki at nekk juróom-ñetti at ne ko ah soo ko mënoon a fukk di ndax gis na fukki at moo ko tere jot nubuwa booba góor gi suwaay ba xam na loolu te yéen yàlla Moussa xamagul loolu waaw xaala góor gi ne ko inni man mii kat uriidu bëgg naa an unkihaka ma takkal la may la idab na tayya kenn ci ñaari gone yu jigéen yi haatee ni ñaar ñii gis nga yàlla rek la doon wut gis na xam ne kii moom ku leen dénk ku ko dénk njaboot yàlla tàbbi na ci moom hmm. seetu lu Moussa amak lu Moussa amul gan koo xam ne yaa ngi koy dóor a gis hmm. tey rek nga koy gis hmm. nangul ko lépp dëkkoo fi waxu ko kenn xamul ak kenn xamul say maam yooyu yëpp lijjantiwu ko yàlla rek xaqiqa la waaye baada dikkee lu yàqu ci la yàqu aha waaye nag ala an taajurani ci sartab nag nga liggéeyal ma nga sàmmal ma samaaniyata xijaj mooy juróom-ñetti at waaye wax naa li tax mu def loo ko ko fukk wax naa la ko léegi mu nekk fa in at mam te ndegam mottali nga liggéey bi asaran fukki at de fa min indika loolu moom ci sa coobar rek lay nekk lay bàyyi koo man daal juróom-ñetti at yi laal sas boo ko defee fukki itam booba xam ne ne bu ko waxee fukki itam yént yàlla Musaa du gàntu ci la ko takkal gone ga nag ca booba la ko may xale ba ci tàng-tàng ba kay wa maa uridu bëgguma an asuqa ci ma tiisal jafeel alayka ci sa kaw teg la loo mënul wax dëgg yàlla fasuma ko yéene ci sa ngoro gi nga ma eh, ngoro yeeg yow fasuma yéene teg la ci loo mënul léegi nag nit ñi moom dañu profité ci ngoro yi rek ndaa seen paaka walla seen jaasi taa sànq seet fa mu ñawee rek ñu dagg ko fa war na doy tax na de